moon wax sama doomu mag bokkam ne bu mu bokkal ndeek baay mu ngi ci l'essentiel bi gaal bi dafa toj ci digg bulba bi gaal bi mu ñëw fi indi lu boppam bulba bi moo ko indi fi ah, daanak boo gennal gi yëpp ñu ngi ci bulba bi waaye man dañ ma woo ah, wàllu neuf heures mm-hmm. fekk maa ngi voyage waaye moom déggu ma mosuma wax te day dem mosuma ko dégg wallaahi ak tullaahi. allo moom. ah ah gis nga ma maa ngi ni doog a wàcc ndaar wàcc ndaar rek bi bi bi jël oto fekk fekk foofu rakkam. kii mooy papam moom ndar doon liggéey lu mat fukki at fala takk soxna tool yi mu ngi saaw parkam yee assuré naa ba muy dem bàyyi yëgul ndey yëgul rakk yëgul. max yëgul ci la mën a assuré. subu teer rek ñuy ruuma ndaas ruuma ndaas bu ma nee benn nit moo fi nekkoon wala ku leen ñaari nit day wax ko nekk comme ni si dara kottu gaal bi kese la ñu